te to battale te Cheikh Abdou Dia borom du yooli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ndigal bàyyi ko na ci Serigne Touba Cheikh Sidi El Mokhtar xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jëm ci buntu kër bo xamné ne ko tuddé day mel tuddu nañ buntu kër imam Maharam yëpp waye buñ ko tuddé day mel tuddu nañ mbolém buntu kër imam maam Balla Aysa buntu kër bobu moy ban buntu kër kër Serigne Abdou Dia mbacké duyoli mom ma nga xamné mok mook Serigne Touba khadim rasoul ba ño bokk wenn wayjur Serigne Touba daan ko waxna soxna fati del nemmi ko sa mam ndax mo la jox saw tour koké day mok Serigne Abdou Dia mi ño bokk wenn wayjur di soxna Dia Touré mom soxna fati Balla Muatah bis bobu Serigne Touba Cheikh Sidiyal Mokhtar yekati ndigal li jëme si ko ci kër gi ñu fas ko yene and nak ak mbollem buntu kër imam maam maharam nak rawati rawatina buntu kër njabotuk serigne sëñ maam Balla Aysa gi lako ko ci kër serigne Mor Jaara magi mag borom sam jaar ci kër borom darul muhti waye wacc ci nak ci kër mam cheikhanta kër ga nga xam bo fa fekk fa doomi ndey serigne Abdou di Cheikh Mamoun ma nga mok mom ño andon dem gannar and ak mom dem Ceyeen waaye wàcc si kër ma samba Bàcc Anta Ceebo kër sëñ Balla Coro kër sëñ Seex Coro ak mbooleem njabootu sëñ Mbàkke Mor Anta Sali gi ndigal loolu mi ngi jëm si ci ñoom waaye nag wàcc ci buntu kër doomi Serigne Touba yi nag nga xam ne bu ñu tuddee Cheikh Mahamadou Moustapha Al Karim mi taawub Serigne Touba ci ren jii njabootuk Serigne Abdou Diaghi defaat ci loo rafet na seen way jur wa daan dundale yoon wi ci dox ak bokk ak jokk ko ak rafetal ko moo tax tey jii ñu tànn taawub Serigne Touba boobee nga xam ne moo fondation ne jumaa ji andi Serigne tubaa ci biir waaye andil ñu fi raay bi kookee di Serigne Mouhamadul Moustapha taawub Serigne Touba ba moom la ñu nag dara jaale bis bi ren jii moo tax Serigne Ahmadul Mokhtar moom la ñuy njëkk a woo waaye buñ ko wooyee nag woo nañ mbooleem buntu kër yi Serigne Touba yëpp ba ci kër Cheikh Mouhamadul Mourtala. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi sant yàlla bu baax di bi alayhi salaatu wasalaam di santat sunu borom mo minu mayan ñu togon fi daw ak at yu bari suñu borom dimbali waan ñu togat fi ren ci kanam sunu kilifa yi nga xamna na ñoo jot ndigal ci seeni kilifa ñom ñu jox ñu ndigal ñu waral jëf ndigal lolu ndigal la moy bis bi nga xamna dafa dëtmal si di bisub serigne abdija du yoli mu don bis bo xamne moy bis biñu bis biñuy jarign ndax bis la bo xamne ah ñun day dañoo sante suñu borom bu baax moom mi ñu xam ne moo ñu boole sëñ Abdou mu tànnal ñu ko ndax bis bii mboolem lu ñu am ak mboolem lu ñu xam ak mboolem lu ñu sañ ci bis bii lañ ko amee ndax bis bi la ko sabab mooy sëñ Abdou Dia Doyoly dafa jóge woon fii ci Mbàkke laxas dem fekki wajuru mu baax wa Seexul Xadim ca gànnaar nekk fa ak moom ba ñëw ci yeen Jolof mu gërëm ko fa bis boobu nga xam ne ki la ko Seexul Xadim gërëme woon nag moom lañuy ñuy barkeloo ñun njabootu sëñ Abdou Dia yoli gep di ci xentu ngeerum sëñ Touba di ci xentu ngeerum sëñ Abdou Dia yoli moy sababu ñu japp le 6 ginaa bu kilifa yi amé ndigal ci seeni kilifa muy sëriñ Sidil Maxtaar mi fi nek cheikhul qadim motax mu joxat ñu bis jappalat ñu bis bi ñu togaat fi di ko bokki jullit yi ak bokki taalibe yi ak njabotu sëñ Abdou Dia yoli gep bis bi nak sëriñ bi tok di sëriñ maam Balla Mbacke xalifab sëñ Abdou Dia Doyoly nee na mi ngi ciy woo bépp taalibe di ci woo mi ngi ciy bépp julit di ci woo bépp mbokk di ci woo bépp taalibe di ci soññiwaat boppam diñ ci soññiwaat di ñu wax ñu fas yéenoo jotal ay kàddu yoo xam ne dañuy waajal nu nooraw nañ fa daa demee ndax at mu ne dan daa waaj ñun njaboot gi dafa dem ren jii nag sëriñ bi wax ne nañu takkuwaat jàppaat la siis jooju mboolem ku bokk ci kër sëñ Abdou Dia Doyoly ak noo ci mën a bokke sëriñ baa ngi lay soññi ñu dem ca Daaru Salaam duyooli ci fa ak njabootu Sëñ Abdou Ja duyooli gi màggal fa bis ba. asalaamaaleykum sëriñ maam Balla Mbacke xalifa Cheikh sëriñ Abdou duyooli yow sëriñ maam Balla xalifa Abdou Ja duyooli yaag sa yi nga toogal ak doom ak njaboot gi ak suuf. taalibe yi sëriñ Ahmadou Mokhtar ngi lay nuyu ci turam ak ci turu njaboot gi yëpp di la yëgal ne bis bii nga xam ne de ngeen ko Cheikh Mouhamadul Moustapha muy euh, lundi le premier février di ko defee fii ci kër sëñ Abdou gii ci Touba sëriñ Ahmadou Moukhtar mbakke nee na tudde gi ngeen ko tuddee bég na ci lool mi ngi la ci sant di la ci gërëm di ci yëgle ne jokk gi nga xam ne yaa ngi koy yeesalaat di ko jokk diggante boobee nga xam ne moo xewoon ci diggante Cheikh Moustapha ak sëñ Abdou Dia Mbacke du yooli gi àndandoo ñoom ñëpp di ko yeesalaat di ko jokkaat ren ba tax ñu tuddee Cheikh Moustapha bis boobu yi sëriñ Ahmadou Moukhtar na bég na ci loolu. mi ngi lay seereel mbigam di la seereel mbégtam njaboot gi yëpp di mbooleem njabootu Daaru Xulos gépp ak njabootu Sëñ Tuubaa gépp nee na yëg na ko baax a baax a baax xolam it sedd na ci lool ci lool yi mi ngi la ciy sant di ci sant njaboot gi yëpp di ñaan nag njaboot gi nga xam ne ñooy njabootu Cheikh Moustapha waa Daaru Xulos gépp bis boobu ñu tuddee Cheikh Moustapha al Karim muy bisu sëñ Abdou Dia Mbacke Doyoly mu ngi ñaan mbooleem ko aju ci Daaru Xuddus bis boobu nga bàyyi ko xel bu ñëwee muy doom yi di njaboot gi ak cheikh yi ak taalibe yi ak soppe yi nañu àndandoo bu baax a baax dundal bis boobu nga xam ne moom la njabootu sëñ Abdou Dia Mbacke Doyoly tudde cheikh Moustapha Karim te di muy conférence boo xam ne moom la ñuy waajalee màggalu sëñ Abdou Dia Mbacke bu ren gi loolu mi ngi soññi mboolem ku bokk ci Daaru Xuddus te dëkk tuuba dale ko ci doomam yu tedd yii ak daayira yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi ak wëllëre yi ak cheikh si ñu waajal bis boobu baax a baax a baax te ànd koog njabootu sëñ Abdou Dia Mbacke du yool yi te nam gën a rafete képp koo xam ne yaa ngi dégg sunu kàddu na nga yëg ne jot nga digal ci sëñ Ahmadul Muxtaar mu lay soññi ci bis bi ñu jox ko ak xam te teg ko fa mu war a tege ndax nee na sedd na xolom lool dalal na xelam lool ci rak mbokkam moom yee nga xam ne moom la bokkaloon sëñ tubaa muy doomi ndey yi soxna Faati Ja Mbàkke mi doon magam Serigne Touba nee na bu ñu tuddee bisam Cheikh Moustapha mi ngi ñaan njaboot yëpp ñu àndandoo maase teew ci ca mu gën a rafete te ànd ak ñoom bis boobu yi ba mu mat sëkk te bu màggal gaa yi ñu àndandoo dem duyooli. rahmatullah ñu tënk nuyoo bi ndax waxtu xoj nañu saf suñu nuyoo ci nuyoo Serigne Abo Mbàkke mi nga xam ne jëloon na kàddu léegi doy na sëkk ci nuyoo ak fu mu ko jaarale noonu nag noo ngi wax ci kaddu taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci kër sëriñ bi jëmewaat suñ kaddu ci taalibe yi nga xamante ne ñoo aju ci kër sëriñ Abdou Dia Doyoly ak fépp fi taalibe mën a ajo ak kër goo ci mën a siyaare foo mën a fekk genn kër gi kepp la noo ngi woo ñëpp nag wax taalibe yi ñun dey amuñu benn bis bu gën a kawe bis bi ci ñun lu dul bis bi nga xam ne ci la Seexul mu woote ne nañ ko santle Seexul nañ ko santle boromam bu xasee jàll bis bi dañ am mooy bis boo xam ne moo gën a ko suñuy bis ñoo ci ciy woo taalibe yëpp nag di wax ne kenn ku ci nekk na nga solaat saw dàll dafa séenee rawante ab taalibe nag la muy rawee moroom taalibeem mooy kër sëriñam ku ci ku ci raw dootuñu la dab te kuñ ci raw dootoo dabe dàq rek fi nekk kon na taalibe yëpp laxa waat képp koo xam ne doxin wa nga doxee woon daaw aw bu doonu xel ñu ne fukk la na nga fexe bay daw téeméer ren mooy njariñ li tey mooy njariñ li ëllëg ginnaaw loolu nag nga xam ne taalibe yi ci kër gi ñoo ko moom dañuy wax ne suñu bokk taalibe yi nga xam ne danoo bokk ñoom seexul xaddim ak fi mu naa nekk ak fi mu doon ak fi moom parce ak tax te bis bi rek la ñam ku nu fekk daaru salaam doyal yi na la seedal ne day yëg nañ sa taxawaay ñun sa jàpp ci ñun te fedduwaat nañ suñu jàpp ci bu baax a baax a baax foofu la ñuy tënk suñuy wax xam naa mën naa bay gun dafa mel ne julli gaa ngi bëgg a jot liñ ci bëggoon wax lépp xam naa du ci xaj waaye noo ngi soññ ñëpp di woo daayira yëpp nag daayira boo xam ne aju nga ci kër gi ak foo mën a ne muy ci fukki régions yi ñeent yi nekk ci Sénégal ñoo ngi woo ñëpp bàyyiwun kenn ne ñëpp loxo daay fexe ba la 6 incha allah le 5 incha allah ñun ñëpp nañ daje Daaru Salaam doyali saytu saytu liggéey ba le 5 nañ daje Daaru Salaam saytu liggéey ba teg ko fañ ko war a teg balaa bo balaa bokk yee ñëw balaa gan ñee ñëw fekk ñu fi ñëpp def lañu war def lépp le 6 ñu and ak ñom ca loola bu jàllee le 7 ñu xey kenn ku ci nek delu wat fa nga jël won bagage nga teunkat ko ba delo ko fa loolu mooy wàllu taalibe te ñoo ngi ci soñ ñepp di soñ suñu bop bu baaxa baaxa baax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nek ci sa tour ak sa sante di wax ci touru serigne bi ak rakam yu baax yi nga xamé ne ñoo nek ci wetam muy serigne bara ak serigne Ahmadou jaddali ak mbollem seen njabootu bop gi fi tew ginaaw bi mu jotay ndigal ci Cheikh Sidil muhtar khalif central de Mouride mi ngi soñé di fatali lam daan soñé di fatali lam daan fàttalee muy bisu magal daru salam du yoli serigne bi mi ngi wo mbollem njabootu Cheikhul Khadim gep liko tambalé ci keur Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci keur Cheikh Mouhamadul murtala serigne bi mi ngi len ci wo di len ci soñu te xamné bis bi seen bis la ñom lañ koy defal Sering bi mi ngi wo mbollem cheikh yi aji ci yoonu Mouride. te nekkoon ak sëriñ Abdou Dia ci kanam sëriñ Touba di fa tarbiya sëñ bi mi ngi leen ci woo baywul kenn waxtu wee xat ba mënuy sutal lim kenn waaye képp ku ca bokk rek sëñ bi mu ngi lay woo ci bis bi sëriñ bi mi ngi woo ñu yore wàllu àdduna di président la république Macky Sall ndax wóllëre la ci kër gi gu yàgg-yàgg loole sëñ bi mu ngi koy feddali mu ngi ko koy fàttali di ko fàttali directeur de cabinet di Omar Youm di xarit ci kër gi di wóolëre ci kër gi di soppi ci kër gi sëñ bi mi ngi koy fàttali fàttali boppam di ko fàttali mbooleem gouvernement bi bàyyiwul kenn képp kuy jàppale président sëñ bi mi ngi la koy soññ di ko soññ président assemblée nationale Moustapha Niasse sëñ bi ngi koy soññ di ko soññ mbooleem ñu topp ci moom sëñ bi mi ngi koy soññ madame Aminata total présidente conseil économie et social et environnemental ndax kóllëreem ak kër gi yàgg na lool te màggal gi sax daanaka ci teewal boppam sëñ bi mu ngi ko koy fettali di jokk ko lëre googu di ko ko fàttali di ko ci séntu sëriñ bi mu ngi soññ mbooleem ñi nga xamante ni dañoo aju ci kër gi te nekk bitim réew fuñ fi mën a nekk te tënku ba mënuñoo ñëw ci bis bi nañu dajee ca foofa ànd ko mbokki taalibe ya fa nekk ñu màggal ko ni ko waa dëkk bi di màggale sëñ bi mi lañ koy soññ ñoom ñëpp bayul kenn li nga xamante ni nag moo ci dolli ko tey muy conférence boobu ñu wax digënté Cheikh mohamadou Mustafa ak Serigne Abdou Dia ci lool yi nga xamanteni se di xalat na di conférence bi ñu war tuddu Cheikh mohamadou Moustapha ginaaw biñ ci amé ndigalul Serigne bi ndax euh, digënté Cheikh mohamadou Moustapha ak Serigne Abdou Dia li leen boré dafa bari ndax ke euh, bokku la ak booleeg Serigne Touba ndax booleeg Serigne Touba gi ci Ceyeen jollof la won ginnaaw bi Cheikh Mouhamadou Cheikh euh, Ahmadou Bamba wàcce liggéey ñëw fii Touba moo njëkk a jox boppam Cheikh mo Cheikh Mouhamadou Moustapha ci ko sant Mbacké loolu rek jaroon na sët yi jóg dundalaat bokk ko dundalaat relation boobu ndax moo ko njëkk a jox boppam ci ko sant Mbacké teg ko fa mu tegoon Serigne Touba daan ko defal lam daan defal Serigne Touba ba ni ko noppee gis loolee nag sët yi ne jot na sëti sëñ Mouhamadou Moustapha yi ak sëti sëñ Abdou Gueye yi dundalaat lool ndax ci lépp sabab nag bii sëriñ bi dina woon nañ ko leeral wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf sëriñ Longoor mi nga xam ne moo doon wax ci turu sëñ Ahmadul Mokhtar sëriñ Ousmane nges mi doon woote ci turu taalibe yi waaye sëriñ Mahmoudane mi doon woote ci turu sëriñ bi day mel ne woote bi jot na ndax bàyyiwul kenn. bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn ci lii nga xamante ne bii njabootuk sëriñ Abdou Dia Doyoly ak njabootuk maam Maharam gi ñoo ko bokk bis bi war a doon juróom-benn fan ci weeru février conférence bi nag de altine bii di ñëw altine le premier février loolu moo tax sëti sëriñ Abdou Dia Doyoly yëpp nag àndandoo di ko yëgal mbooleem sëti sëriñ Touba yi ak fu ñu mën a bokke moo xam sët yi ca Daaru Muti wala yi ca Daaru Salaam sët yi ci ak sët yi seex sëriñ Touba yi foofu daayira boo xam ne daa lëkkale sëti kër kër googa sëti sëñ Abdou Diop Doyoly nee na ñu ngi lay seen conférence boobu ndax ren lañ ko njëkk a jëf tàmbalee ko ci Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne dégg nañ ni sëriñ Mahmoudan waxee kere ba sëriñ Touba Xaadimu Rasul ñëwee ci jumaa ji sëriñ Abdou Diop Doyoly moo daal di walbati ko fa saasa jaayante ak Cheikh Mamadou Moustapha al ne ko tey jii ay sunum sëriñ Touba jëkk ko topp ci ay bokkam loolu moo tax nag relation boobee amoon rafet lool sët image di ko dundalaat nag di ci woo mbooleem koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah ci seen conférence boobu Cheikh Abdou Dia borom du yooli